bu duloon li li VAR annulé son son deuxième but dans le match bi mu football tey ak Brighton ni ko tey Sadio dina am sans bi waaye comme nag benn but lañu ñu nangu ne moom la dugal ndax bële dañ ne loxo la ko dugalee Sadio Mané kii di doomu Sénégal bokk na tey ci trente joueurs yi nga xamante ne ñoo ëpp li ñu dugal but ca Premier League ndax jamono yële passé moom ak Emile Eskay ñoo ko doon joxante tey jii nag euh, mën nañ jàpp ne Sadio Mané mu ngi visé record kii nga xamante ne moo di Didier Drogba nekk doomu Côte d'Ivoire waaye nag tey boo xaymaa bu yi nga xamante ne Sadio Mané dugal na ko foofee ca Premier League di nga gis ne kii di doomu Sénégal c'est un renard te surfaces ndax ci biir surface de réparation dugal na ci quatre-vingt-dix-huit buts euh, ci hors la surface ñetti bi rek la la ci dugal waaye nag euh, boo xoolee tey boo defee jàngat ci li ñuy wax point forum dañ ne woon càmmoñam moom mooy point forum waaye foofee Sadio Mané 27 bi rek la ci dugal ci limu 101 bi yi nga xamante ne moom nañu moom la ñu wax ne moom la dugal ndax pied droit bi nag <laughs> comme dañ doon wax ne du point forum moom ci la ëpp lu mu dugal dugal na fa 61 bi ndaama buy dugal la tête Sadio Mané. dugal na treize bu de la tête ci championnat Angleterre mu nekk nag loo xamante ne euh, nekk na performance bu mag ndax boo xoolee buy football Anfield ci lay gën a ci lay gën a rakkaaju daanaka ci lay ëpp li mu dugal ci biir ndax foofu dugal na fa 67 buts euh, bu ñuy football nag à ci lay dugal ci la dugal 34 buts loolu nag boo xoolee jàng boo defee jàngat. di nga mën dinañ mën a wax ne Sadio Mané c'est le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps ndax nekk meilleur buteur prime league c'est pas donné à tout le monde joué na ñaari ligue des champions gagné ci benn gagné na trophée des champions waaye nag li gën ràññeeku gannaaw ba mu gañee gagné ballon d'or africain Sadio Mané bokk na ci juróomi joueur yi nga xamante ne lim nañ leen ci Ballon d'Or France Football juróomi joueur yoo xamante ne jàpp nañ leen ñoo gën a xariñ ci àdduna bi loolu la nekk na performance bu mag ndax onze d'or du ko nekk moo koy moo koy gagné donc Sadio Mané tey marge de progression euh, mën nañu wax ne ak âge Euh, mu ngi ci kanamam jàpp nañ ne dina gën a placé wu ci ci classement de maire buteurs la de la Prime League ñu bañ ko dina tableeg nag ak benn footballeur ci Sénégal la ndax Sadio Mané amul dimension africaine dafa am une dimension intercontinentale